maa ngi dem Kaolack de te yow laa bëgg nga gunge ma waaye loolu dafa cëram nit da ko jox cër respecté ko monsieur Farba yow yaa créé Kaolack maa ngi dem Kaolack yow laa bëgg nga gunge ma bul bul kenn bu rejeté kenn waaye man boo oo Diène Farba man Ousmane newul bëgguma la oh. Allah sekk ne ku bëgg moom Alaaji Malick Allah bëgg na la ci xolam ku bañ man alaaji Maalik allah bañ na la ci xolam man Ousmane Nawel ma ne ku bëgg Diène Farba Sarr Nawel bëgg na la ci xolam ku bañ Diène Farba Sarr Nawel ak MJK na la ci xolam di laaj yéen soi-disant opposant bi nga xam ngeen foog de opposant la di xas Macky Sall dañuy suuf de am na ñu bëri ñu ay dugg nañ di laaj ay 1 milliard am naa ci lu ma leer di laaj waa ji 1 milliard ne pour ma jàppale la suñ génnee nag di jéem naan Macky Sall baaxul Macky Sall nag c'est archi faux dañuy doxantu guddi encaissé c'est archi faux dañuy doxantu guddi encaissé am na opposant yi nag yu sincère am na respecté seen position mais yenn opposants yi xamé na len mané ñooñu Ousmane Noël bokkul ci Amadou monsieur le premier ministre lajuma la xaalis lajuma la 1 franc mais li bëgg moy kuma jox cër ak ku yëg Diène Farba ku respecté Diène Farba li gars di wax nak man bu ñu ma ko waxagum Ousmane Noël Néna waaw. génne na waaw ah déedéet waxuma waaw de Macky Sall laay xool nag y une grande différence y a une grande différence. bien sûr président Macky Sall fu mu xool laay xool président Macky Sall lu ma wax laay def waaye dafa am lu nekk sama ginnaaw lu diis Amadou Kaolack c'est moi monsieur le président Kaolack c'est moi vanté wu ma billaay vanté wu ma mais dama lay wax ak dëgg. barki yonti yàlla Muhammad barki alaaji Ibrahima Niass Baye Niass barki maam Khalifa Niass barki sëñ Basirou Mbacke barki sëñ Abdou Hamid Kane monsieur Amadou Ba Kaolack sa Diène Farba Sarr Kaolack c'est moi monsieur le ministre dama ne woon lii ma def nii ça c'est une affective et téléphone naa woote vidéo laa def États-Unis New York City man Ousmane Nawel maa ngi nii

su ma leen fayee ca gannaaw la ñu toog ne leen fees mais Amadou monsieur Ba monsieur le premier ministre maa ngi lay waatal li c'est une base affective et saine barki démb ñëw nga Kaolack gis nga ni mu demee waaye lu ma gën a métti lu ma gën a métti mooy président Macky Sall di ñëw Kaolack di tàggoo si président Macky di ñëw di tàggoo si ay kilifa diine àndu leen ak Diène Farba encore muy beneen erreur président Macky Sall tàggoom warul yomb waaye dafa juumati ndaxte ba muy dugg àndul ak borom Kaolack bay dugg ci dëkk da ngay tàgg borom dëkk bi. borom dëkk bi boo duggee ci buntu Kaolack di nga gis arrêt Ousmane Nawel borom dëkk baa ngi noonu nga tàllal tuuti nga gis arrêt Diène Farba Sarr bàyyi borom dëkk baa ngi noonu. yaa ko moom loolu la kon il faut ngeen waxan ci Farba suñ duggee gañe Kaolack non non non bu leen fooree Kaolack Kaolack dañ ko perte de da ngeen àndul ki ngeen war a àndal yàlla sax boolul ànd ak yéen parce que Diène Farba dafa sonn ci Kaolack infrastructure yu am question infrastructure c'est Diène Farba jeunesse bi bu ñu amee dara tuuti rek c'est Diène Farba ki ngeen gën a bëgg muy seen jeune di seen xarit Ousmane Noël lu mu mel c'est Diène Farba

gisoon nañ fi Abdoulaye Wade ci mën nit gisoon nañ fi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais jël forme daf leen dépassé ci mën nit parce que ñooñu ñu bëri dañuy fiir buur dafa fiir waaye jël forme daf ko jiital sans condition ni rien du tout am confiance su def bi dama Ousmane doxalal xam naa li ngay doxal yëpp njëriñu Kaolack la kon monsieur Amadou Ba son excellence président Macky président Macky Sall jiital na la ma lay jox ay quelques conseils ndax foofu laay quelques conseils Amadou si vous voulez gagner élection yi c'est trop facile yow kaw la rek nga wax waaye man dama lay jox sax Dakar bi nga problème Dakar la gën a aay sax ka Si vous voulez gagner les élections là c'est trop facile na nga fexe ba un homme fort l'homme fort yi ngay dégg l'homme fort de Amadou Ba bul ko dégg de bul ko ut boo ko utee rek lobby commencé mais il faut chercher des hommes forts il faut toujours chercher des hommes forts yow yow yow yow yooyu ñëpp laa yemal kenn ñu ànd liggéey bés bu lobby ñu lay accaparer bés boo commencé créer lobby autour de vous c'est fini dootoo am dara parce que yow kenn du la partenaire dara. parce que coow dafa am ba pare parce que da nga mujjee ñëw yow yaa mujjee ñëw fekk fu ñu bëri ñu xam ne ay kàngam lañu créé parti bi ñu tàng la seen kaw yàllaay dogal ànd nañ ci ndax ndogul yàlla ànd rek ñu ne nañ ci waaye li ma bëgg mooy yow nga wàcc yow yaay ut na nga kuy ut da ngay wàcc sa téléphone nga oo ñëpp ooye tous les leaders bul jël naan ay sama secrétaire bi ngi lay oo ay secrétaire gouvernement ak ay xawma nangam jël Farba ku koy oo ku dul yow jël Farba yow Amadou Ba yow yaa koy oo soo ko oowul du ñëw jël Farba boo ko oowul Ousmane Noël du ñëw moo tax ma ne bu ma kenn ne Ousmane Noël nee na waaw neewu ma waaw waaye Macky Sall rek laay xool soxluwuma milliard soxluwuma million waaye dama bëgg ku ma yëg ndax li ma yor dafa bari yorantuwuma dama yor baas

Kaolack boo ko bëggee gagner en grosso modo il faut pas voir monsieur le ministre Diène Farba Sall moo lay jox Kaolack ndaxte Macky Sall ba mu ko bëggee bu le président Macky Sall waxee dëgg bu le président Macky Sall nëbbulee bu le président waxee lépp luy secret ba mu bëggee gagner Kaolack Diène Farba la oo Diène il était à waay mu ne ko Diène bàyyi waay nga demal ma Kaolack yow boo demee Kaolack dinaa gagner Kaolack ba mu ñëwee Kaolack la ñëpp parce que dafa am esprit

te borom xool ku dul président Macky Sall kon maa ngi la ñu gërëm yéen ñëpp maa ngi gërëm waa commune Gént Gueye di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Cheikh aw ma seen fay yàlla moom seen fay yàlla na yàlla fay yéen ay gor yéen a bëgg usman Noël yéen a man pour vous dire que les journalistes man dama dépassé commune de Kaolack de man dépassé naa loolu de

mais ku képp ku fi toog ngay sama yaay waaye nga sama mag xam ngeen baax li ma xam naa maa nekk seen xol man nag aw ma seen fay yàlla moo am seen fay yàlla na yàlla fay yaay papa la jeunesse maa ngi ñaan yàlla ci daraja yonent yàlla Muhammad bu dee yàlla nar na ma may teraanga te du ma ko bokk ak yéen maa ngi ñaan yàlla ci wéeru gàmmu gi yàlla teraanga gi yàlla mu yegg si su ma am teraanga fàtte leen su ma am teraanga wor leen yàlla teraanga gi yàlla bu mu yegg si yàlla yàlla dimbali ma yàlla yàlla ngeen maa dimbali yéen ñiy sonn ci man yàlla boo leen ko te yàlla bu mu séddale seen ginnaaw je vois la jeunesse déterminée les braves femmes au de lynx, mes femmes là, très adorables, MJK, Mafia cette année, les Nemenis, les Nemenitos, cinq cent acte bi nga def Fapal ca bëgg ñëwee yow naanoon nga yàlla yàlla fay du ma la gërëm dama la daal yàlla. di nuyu bu Kër Socé yàlla na yàlla fay ci barki Seydina Mouhamad di nuyu suma xarit sama mag nga xam ne lu ma xew la moo ca gën a gaaw. nanaa ko bu ñëw ma gën a politique ndax yow mënoo politique ndax mënoo mënoo yow ñu ndax da nga baax lu ëpp politique Sénégal dafa sàllee man sama base mooy sama koñ ñi ma gën a bëgg mooy ñoo xam ne ñoo ñu nekk sumay mag ñu nekk sumay nijaay ñu nekk samay rek ñu nekk samay xarit xamante ngeen seen mbir yi ñëpp

ndax métti boo gis am na ñu suy rax caay-caay waaye am na ñu ragal yàlla duñ def lu bon duñ génn lu bon duñ xas gor parce que dafa am lu ñu seet bu nekk leen yéen sama wax ji Macky Sall du ko dégg yuuxu bu ne yuuxu naa ko yéen tax mu dégg ko kon la presse Yen ñep su limé limee joom li fi téw ma ngi ñaan ci dara ji Muhammad yeen seen soxla bi ngeen fi indi mun na am ngeen soxla ñi bëgg yokk ay diplôme ñi bëgg tukki yokku xam-xam ñi am problème bor ñi wara fay nat ñi bëgg am contrat durée indéterminée ñi bëgg yokk ñi bëgg am promotion peut-être am na ñu feebar peut-être am na ñoo xam ne franchement ñu ngi indaale njàqare fii ñu ngi taxaw waaye ñu ngi wa bëgg ñibbi waaye yàlla yaa xam lépp journaliste yi maa ngi ñaan yàlla ci dara ji yënti bu ma jugee yàlla yàlla faj seen aju yaa ngi fi jugee seen aju faj faju képp koo xam ne am nga feebaru tawat wala feebaru poche yàlla ko yàlla faj ci dara ji yënti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu Serigne Daara Medina Baye Serigne Daara sama xarit la dina yëgal suba nag kaamil bi journée Seydina Mouhamad sama kër képp ku bëgg yonent bi maa ngi lay xam ne ba nga yonent yàlla suba na nga ñëw ndax suba teraanga la journée yonent yàlla Mouhamad la sallallahu alayhi boo leen ñëw jigéen bu leen tayal dama na ñuy wax secret bi dama la wax secret adduna bi. secret àdduna yëpp mooy yonent yàlla Muhammad boo leen ñëw muuru leen ndax am na dog yu fay def mu julli ci yonent bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yomb na ah wala salatul fatihi wala loo leen mën boo leen ñëwee ñu julli ci yonent bi yàlla faj ajo aajo yonent bi rek la yàlla waxal moom rek la yàlla xool xoolu keneen lu yàlla amoon yëpp jox na ko yonent bi sallallahu alayhi kon suba maa ngi sàkku képp koo xam ne les novelistes ak ñeneen muy jigéen képp koo xam ne bëgg nga ñëwal nga fas yéene ko sa aajo faj faju ci kàttanu yàlla incha allah rabbi et donc presse bi la ñu gërëm maa ngi gërëm sama yaay yi gërëm sama papa yi gërëm waa ara jakarta yi yàlla na yàlla fay du ñuy le président Moustapha un homme très digne très engagé su ma nee Moustapha rek nuyu naaw ak jakarta maan yëpp di wax nag jakarta maan yi dama bëgg ngeen créer benn association boo xam ne ñun ànd seeg sincérité ànd seeg personnalité limitée ànd cette fidélité ñu oto ay financement ñu toog bu leen kenn jëli da ngeen wii bi Ousmane ñëw rek kottu kese Ousmane ñëw rek kottu kese oto ay financement yi ngeen ñuy liggéey boo leen feebaree faju ku bëgg jakarta ngeen jëndal ko bu tabaski ci jotee doo am problème ak seen soxla yi yàlla na yàlla fay na jox la Ndiaye ndeysaan donc maa ngi wax ne maa ngi santaat yàlla ne am na lu ma a defal ci atum septembre ci atum 2023 ñu dégloo am na lu ma yàlla defal ñu dégloo ñu dégloo tuuti rek fii lay arrêté maa ngi ñëw leneen li toog di wax ne

يا محمد ولدنا وبابهم صلى الله عليه وسلم ما يكرم سيدنا محمد ما يكرم يد يا محمد تلينا خمنة يا الله تكنو كوتشلوهم يندو صلى الله عليه وسلم مقبر إذا ما كسل مفعل ما كوبي أمبا سدر إتمنا تقوم كو في dernier bout de vie ci wéré yëndu sallallahu alayhi wasallam ma ngoy may nak sama jigéñu MJK nga xam ne ba dara dul dara yéen a sonn man yéen a yéen a taw ci man su ma wéetee yéen a fay dinaa jël service nag su demee ba xam lépp la ma cay fayeku kas néew dinaa ko addel yonent yàlla Muhammad ndax man am naa maa ngi sant amna naa dépense maa ngi sante Diène Farba a tout fait pour moi à mon âge j'ai fait le tour du monde amna naa dépense maa ngi liguey kon bo amé partagé lama ci am kes néew ko xamé yeen dina leen owaat presse bi ne li la ci am adil naa ko yonent Yàlla Muhammad Dina ko jox new doole chaque weer bi ma ko jotee dinaa ko tiire adel ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu xool teg ko ci loxo yu leer